salli ala muhammadin allah gis nañ jàngat yi nga am ci Idrissa Seck ak gouvernement bi ñu ngi la ciy jaajëfal mais euh, dañuy tëj pass boobu ñu dugg ci international ok waaw léegi international bi gis nañ ni ci Afrique ñu ngi ñu gis loo xamante ni bii pour nga gisoon ko du yomb maanaam ay coup d'état yu nekk yoo xamante ni bi mi ngi mi ngi mi ngi xew ci loo xamante ni bi yombuloon nga ko gis yan jàngat nga am ci loolu. bon xam nga coup d'état yi nekk Afrique et pratiquement Afrique la gën a bari et surtout Afrique de l'Ouest mm-hmm. xam nga tant qu'il y a coup d'état constitutionnel il y a il y forcément des coups d'état militaires mm-hmm. c'est su fekkente ne ñi ñi ñu ñu teg ci réew yi dangay ngay da falu rek na dootoo fa jógeeti de troisième mandat bëgg aakimoo nguur gi ku wax nga tëj ko dictature nangam nangam nangam loolu bu dee ci réew yi demee na yeneen réew yi foog man yooyu mën na laa bett mm-hmm. par exemple suñ jëlee cas Mali wala Guinée par exemple mm-hmm. aujourd'hui y a Doumbouya qui est au mm-hmm. en Guinée Doumbouya ki mu coup d'état moo ko fabriqué Alpha Condé ci boppam formation yi nekk ci moom moom moo ko repéré dans l'armée xëcc ko indi ko même bi mu nekkee Thiès di def formation loolu sawaay moo ko ko defal mais Doumbouya également il a constaté man nag fi ma meree foofu sax armée guinéenne bi moom mooy moment yi nga xam ne conseil constitutionnel ñi ngi validé ne Alpha Condé gagné na élection yi l'armée était là inerte mhm. seen yoon nekku ci yoon mënu mënoon nañu réagir moment boobu ñu bàyyi ba mu dawal tuuti xëy na tamit stratégie la pour xool nuñ ko tebbee ndànk pour bañ a effusion de sang ñu mhm. fexe ba jële ko fa ñoom Doumbouya ña nga fa te mhm. il a très proche de Doumbouya alors ñu bàyyi mu jàll mais comme Cellou Dalein Diallo dafa def ñaari élection ñu gañe ko ba noppi sàcc élection yi sàcceen woo xam ne wii pratiquement yow daanaka deuxième tour bi waa ji rawee na la pratiquement lu mat 48 pour cent yow amoo sax 30 pour cent nga wëlbati carte gi ba gañe tout le monde savait à l'époque que Cellou moo gañe woon mais Cellou ren élection yi ñu génn li tax Alpha Condé am problème ay tablettes la wut ay tablettes tous les militants et ses dans les bureaux de vote ak Guinée ni mu ngandee ak ni mu réyee mm. xam nga Guinée dafa nekk euh, benn relief quoi ay genre montagne yéeg fii mm. dugg fi génn fii Cellou Dalein jàll fexe na ba tous les bureaux de vote am ko ko fa teewal résultat résultat provisoire yi à la seconde lañ ko doon joxe mm. di du ko yóbbu seen plateforme yi taf taf taf taf ñu jox la résultat yi loolu moo jaaxaloon nag staff politique bu Alpha Condé mais l'armée nationale même Doumbouya mii xamoon na ne mbokkam mi gañewul woon bon ñu dawal tuuti mu dem déposer ko teg ko nale mais pour le moment nii RPG seen parti bi ñoom waa bu waa Guinée bi def nañ congrès barki dem boo Ndiaye. li ñu wax ca congrès ba moom mooy nañu bàyyi Alpha Condé parce que depuis que l'armée teg ko loxo jàpp ko ba léegi ay mbokkam gisuñu ko deful benn apparition ni à la télévision ni au public. ci public bi kenn gisu ko. léegi nag mais ginne dafa am tradition coup d'état xam nga c'est vrai que après avant Alpha Condé mii dafa nekk nii. élection yii di am nii xam nga Lansana Conté ma nga foon mais Lansana Conté sax moom après dafa feebar faatu ak yu demee noonu Sékou bi nga xam ne nekkoon na fa président en 84 la génn àddina mais amoon na ci diggante boobu benn transition bu ndaw ba na jël affaire bi mais après amaatoon na beneen coup d'état boo xam ne bii Dadis Camara gis nga la ca xewoon ca ca seen stade baag la ca xew ak rey doomu aadama ak yooyu ba moom sax ñu mujjoon ko euh, que Dadis Camara sa maman est mu jekk jéegu jóge foofu dem ci seen village bi nga xam ne mi ngi nekk ci frontière bi Guinée réew yi ëpp richesse ci Sénégal ci àddina bi la bokk surtout Afrique pardon mais yàlla def leen a xiirul ci ñu am chef d'état bu bu tane bu baax loolu ñoom Alpha Condé moom lii ko dal ak i troisième mandat ak ak def forcing bi moo tax li ko dal dal ko su dee Mali su dee Mali le général Goïta cest à xam nga la armée malienne mhm. depuis Moussa Traoré xam nga armée la boo xam ne bii man dafa am paradoxe yu nekk ci biir parce que pratiquement man nga 30 30 pour cent des officiers de l' armée malienne yu ci bëree bëri Russie la ñu defee seen formation la plupart des militaires euh, yi nga xam ne ay cadre lañ jàng dem nañ Russie bon bu dee ci Guinée Doumbouya moo fi dem France mais bon c' était pas très fameux mu jeex léegi nag Mali dafa nekk stratégiquement dafa nekk réew dëkk boo xam ne bii mu ëpp Sénégal plus de cinq fois lu jiit sa IBK de falu Ibrahima Boubacar Keita xam nga ATT ma nga fa woon Amadi Toumani Touré quand Amadi Toumani Touré était la bas il a il avait réussi te sorte que même berbère yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu le ndax berbère yooyu nekk ci désert bi boo di Kidal nekk ay naar ñu leen tuddee al Hassaniyun ñoom ak waa Mauritanie gi ñoo bokk benn deret ñoo bokk benn langue am na sax seen benn rajo boo xam ne bii attaque yi doon def rajo bi ñu ngi ko sampoon ci frontière entre Mali ak Guinée ah safrala ak Mauritanie pour di mën a joxe information. moo tax le président mauritanien Abdel Aziz à l' époque mu fa nekkee doo dégg benn attaque gars daw dugg Mauritanie def ko parce que dafa si ñoon ci suuf ay accord non agression yoo xam ne rebelle doo woon ñu dugg foofu léegi nag Amadou Toumani Touré dafa fexe woon ba ci biir palais bi foofu la doon woo gars ñuy waxtaan mu pacifier leen. comme ni nga xamee ne Thomas Sankara euh, nga baal ma astafurlah Blaise Compaoré defoon na ko bi mu nekkee président Burkina Burkina Faso parce que moment boobu tamit ñu doon pacifié leen woon léegi nag loolu ña fa jaaraat defuñu loolu ba ci IBK xam nga Ibrahima Boubacar Keïta avant ñu koy fal muy nekk président de la République jiite dafa assemblée nationale bu Mali mais il a été quelqu'un qui était dans l'opposition et cetera ba ni mu faloo am na tamit kenn ku doxaatoon ci digg bi xam nga fa Konaare Konaareel tudd xawma mais kooku moom géographe la dafa un peu administratif et tout moom it fexewoon na ba jàmm am mais bi nga xamee ne ndax génne euh, Mali nag yàgg naa jaar ci moom itam ci ay coup d'état ay coup d'état yu dul jeex am na ci Mali parce que régime militaire la cetera ba sa waay mi ñëw di Koyta koy Koyta bi parce que après Bandaw Bandaw moo fa nekkoon mais bërki démb rek li ma la wax ni matagul une semaine six personnes la gouvernement bu Mali jàpp dugal leen ci kaso bi parce que dafa ñoom nee nañ li ñu leen di accusé mooy ñoom dañu am ay velléité de de fomenter un coup d'état il y avait un professeur de droit nekk bu nekkoon ci biir du ma turam Euh, jàpp nañ ko ak keneen koo xam ne kii il te le conseil nekkoon ci présidence bi ci ci ci seen palais boobu nekk ci Bukavu foofu ci ci ci ci Bamako nekkoon foo yore wàllu renseignement jàppale nañ ko. armée moo leen jàpp waaw non armée bi moo leen jàpp. Hmm. armée Koïta le le le colonel Koïta moo leen jàpp parce que daf leen accusé hmm. ne ñoom dañoo bëggoon a def coup d'état hmm. loolu ci Mali ci ci Mali mais il faut ñu comprendre ne histoire Mali. dafa nekk histoire bu ñoom nag seen histoire histoire bu fort la bu ba ca kaw parce que xeet yu baree baree baree dañu dajale foofu dañoo dajoo foofu surtout jullit yi hmm. xam nga am na ay azawaat foofu la ansaaru diin hmm. mais ñooñu ñi ngi fekk ci al alqayda parce que alqayda bi nga xamee ne mi ngi jóge mi ngi juddoo ci Algérie élection yi amoon ci fils front islamique du Sali bi nekkoon ci Algérie ñoom bu jaaf bi bi ñu bi ñu leen bi ñu bi bi fils gagné ñu jaxase élection yi te ñu rey ko ci loolu mer moomu moo jur alqayda alkayda nag moom moo jur ay yi ngay dégg yëpp ay ansaaru diin ak zawat yooyu ay produits yi alkayda lañ mhm. ba ni état islamique juddoo ba ay ñoom Oussama Ben Laden nag yu demee noonu alors militaires yi bi ñuy ñëwee bandaw bi nga xam ne moom moo fa nekkoon ñu teg ko fa tuuti mu nekk civil affaire ba gis nga doyu leen ñu jëlee ko fa jëlee fa gars yi moo tax CEDEAO temps yi seen réunion bu mujj bi à Accra Macky Sall mi demoon na ca dañ bëgg a durcir les sanctions individuelles parce que ñoom bi ñu demee Mali dañoo gis ne daal vraiment euh, gouvernement bu Koïta euh, Goïta bi la leen waxoon ne transition bi gàpp bi ñu ko def waroon def def nañ ko le gouvernement malien a dit que yi wax waa CEDEAO mhm. nee nañ dañ leen di sanctionner yu gën a dur et individuellement comme la Guinée également mhm. euh, Doumbouya mais il y mais li ci gën a garaaw nag mooy Union européenne dajaloo nañu ne ñoom léegi dañuy jàppale CEDEAO pour que sanction yi ñu def ci ñaari réew yooyu le ñu gën ko durcir parce que un coup d'état militaire lañu def te loolu c'est anticonstitutionnel ba noppi itam accord yi ñu waxoon seen diggante ak CEDEAO respecté wuñ ko malheureusement Afrique du dem. Afrique du dem est-ce que nañ ñoom tamit ñoom ñu ko. E CEDEAO nag moom daanaka ab syndicat la. Mhm. CEDEAO dañuy gis fañ war a waxee dañu fa waxee. Mhm. ñu bàyyi ba jaan ji dem ñuy dóor ci partis yi. parce que Alpha Condé mi li ko dal CEDEAO bu réagiroon au début. comme ni ñu defoon ci ci ci ci Gambie. Mhm. bi nga xamee ne Barrow faloogul. te yaay jame bëgg a confisquer résultat yi taxawaay ba taxawaay yoon te armée boobu Sénégal jiite woon opération militaire yi hmm. ñoom bu ñu ko defoon ca Mali wala ci yeneen réew yi kon mais dañuy bay euh, def kii ba pare ñu lay féliciter et cetera et d'ailleurs ce qui se passe à ci fële Tchad hmm. Idriss it Itno bi nga xam ne tey Idriss bi gaañu na ci champ de bataille bi la faatoo hmm. Idriss Déby a été le bras droit bras armé même bu waa ji faatu barki bu fii ci biir Ndakaaru tan tëjoon ko fii ci kaso bi président Tchad boobu Hissène Habré Hissène Habré moom nga xam dañ ko fi fi la faatoo mhm. en 90 91 mu ñëw fii ci biir Sénégal ba président Abdou Diouf moo fi nekk mhm. mais moom gis nga Habré mii mu ñuy jàpp ba mu ba tëj ko fii Sénégal ba mu faatu daanaka sax Idriss Déby la ñu waroon a tëj ndax commandement militaire bi à l'époque ak atrocité yi fi amoon yëpp mhm. moom ci boppam ci loxoom la daan jaar mu def ko coup d'état te moom lu jiit loolu amoon na bukk ndaan wax bukk ni wédey parce que xam nga la guerre de N'Djamena c'est pas il y a trois guerres ou quatre guerres à N'Djamena su ma fàttewul en 82 boobu kookoy Samba Sagna moo fa nekkoon mais il y avait la Libye derrière boo xam ne bi dañu doon xeex seen Habré jàpp leen duma leen ñu dem am na benn bande de Gaoussou bu nekk foofu la boo xam ne suuf la son dañu ko doon xeex Kadhafi na moo ko moom coori jëpp ñoom dañoo tradition guerre mais bi bi Idriss Déby faatoo doomam nekk fa France rôle fumiste bi mu joué lan moo tax mu bàyyi doomu Idriss Idriss Déby bi mu jiite armée ba di def lu ko neex di yumbaambaay France sanctionné ko deful dara mhm. ñëw fii di dem Mali naan leen waaw yéen li ngeen def di yoon nag mais coup d'état coup d'état la rek quelle que soit la forme mhm. léegi lan moo tax immédiatement doomu Idriss Déby bi jékki-jékkiwul créer ay euh, organiser ay élection transparente et libre ñu nekk ci pouvoir bi pourtant France ma nga fa te waxul dara mhm. bal sax dañoo dem fekk leen bi ñuy bi fekk leen ci seen fête gi di leen ba noppi nag di bëgg a sanctionner ay Mali ak ay Guinée yu demee noonu loolu itam France moo ko def te CEDEAO boobu ñu ngi foofu ñu dara c'est-à-dire que c'est c'est gis benn image bu doy waar tamit même ci tabaski gi koo xamante ni bi dafa bëggoon a rey ki nga moo jël euh, euh, gouvernement Mali bi téye ko ci loxoom est-ce que moom tamit xelam dina dal ci dem di négocier ak CEDEAO parce que mën na jàpp ni loolu yëpp ay complot la ñu nekk ci ginnaaw non xam nga ki doon bëgg a rey général euh, le colonel Koïta tam fekkoon ko ci jumaa ji ci tabaski gi mm-hmm. rey nañ ko ndax dee na ca camp ba moom bu la jàppee moom macha allah foofu tawarkàlla torturé nañ ko en faatu na xëy na peut-être loolu c'est un problème interne crypto personnel même à la limite parce que coup d'état bi nga xam ne def nañ ko ci ci ci ci Mali am na ñu bari ñoo xam ne neexu leen Ibrahima Boubacar Keïta li ko dal neexul ay bokki boppam yaa ngi fàttale que bi nga xam ne rebelle yi dañ koo jàppoon finalement mu mujj ñàkk bakkanam et tout la mhm. yooyu dafa nekk ay ay ay mhm. yoo xam ni dafa nekk ba léegi am ci ay xeet yoo xam nga xeet askan ay affaire askan ak yooyu. également comme li dal Guinée Conakry. dafa bari ba nga xam ne xëy na ñoom lu ñu ko wone comme ni ko Guinée di wone. mais loolu bokk na ci mais Goïta l' esprit militaire bokkul ak un esprit civil. moom neneen lay gisee. alors que CEDEAO bon c' est vrai que ci Ghana am na ci ñoo xam ne def nañ service militaire et tout ça. mais loolu dëppoowul ak dara mu bañ a mu bañ am kóolute ci waa CEDEAO. CEDEAO ci boppam ñoo jéewul seen rôle. lañ waroon a def defuñu ko mesures yi ñu war a jël jëluñu ko dañuy dajaloo ci seen ay ay ay ay sommet buñ fa jógee wax lu leen neex nekk ci ay bëré yu feutré buñ paree dem seen yoon mais pas de sanction tangible concrète boo xam ne bi def nañ ko jëmale ko ci benn gouvernement et sanctions yi lu muy jariñ du mujj fenn dañuy jékki-jékki sa àndaat ak yow. waaw gis nañ euh, li nga xamante ni taxawaay bi nga xamante ni bii euh, oustaz Modou Faye am na ko ci ci parce que moom mu ngi bañ oustaz mais ay jël comme référence. Ah, yooyu de jëlee rek. <laughs> jël comme référence. Mm. te émission bi jotaay alxuraan la tudd. ah bon te que li ma wax sànq léegi oustaz dafa am benn actualité bu am actuellement ci Sénégal. Mm. ñu bëri nag am ci ay jàngat. muy benn waay boo xamante ni bii dafa xaru may yemul ci xaru bi mais avant muy xaru dafa dafa def loo xamante ni bii rey ñetti doomam li nga xamante ni dafa foor ci papa. wala mm. yaay mu rey leen ban jàngat nga am ci loolu. waaw xanaa di ko lu ndax euh, rey dafa metti mm-hmm. rey ci boppam dafa metti dee sax neexul. Mm-hmm. te lu lu lu tiis la. Mm-hmm. waxatuma la nag ku ko def sa deret koo xam ni ki sa takk ndeer la. yow yaa ko jur nga rey ko lu metti la mm-hmm. ñu ne déetawaat ki ngay rey mu nekk innocent mm-hmm. xale yi seen yan nekkul ci problème bi loolu lu metti la mm-hmm. te xale bu ko bàyyam woowee na ko kaay day nekk ci sécurité day jàpp ne li nga ko wax rek bu ko papaam woowee day kontaan parce que day defe ne il est dans la sécurité te boo doo ko jox ma sama loxo bii ma piqué la da la koy jox rek bu doon nit sax maanaam ñoom dem nañ génn nañu àddina inconsciemment xamuñu sax lu leen rey ce loolu waa ji def xawma lu ko dal xaw ma àndandoo la xaw ma rab la xaw ma lu mu doon wax dëgg yàlla mënu ma ko àtte ndax xaw ma lu waaye lu kenn lu rafetlu la ci àddina ak lu mën a joteeg soxnaam ñoo xam ak lu ko soxnaam mën a def seen mbiru bopp la ñoo xam man daal li ma mënul li ma mënul cautionner mooy le fait de tuer ba noppi rey ay innocent te yàlla nag wax na ci alxuraan yow yaa ne jotaay bi jaay jotaay alxuraan la yàlla nee na képp ku rey nit te tey ko xam nga ban baat la jëf oh, jëfandikoo mutaamidan la wax waaw xam nga mutaamid euh, taamid mooy euh, mooy mm-hmm. loo xam lii bi nga ko def amoo benn contrainte mm-hmm. kenn bundu xatalu la yaa ko def si sciemment mm-hmm. délibérément ci tayef daal waaw ci tayef rey ko xam lu ci yàlla teg fa jazaa'uhul jahannama waaw safara ay niveau la mu ne yàlla nee na kooku amul werante yaa rey nit ki yaa ko tey alxuraan nee na fay gi mooy dem safara ñu ne déeta waaye mu xaru bokk ci dolli ca xaru moom daganul ci lislaam amul benn tex coranique wala hadis prophétique buy cautionné xaru amul amul ci lislaam daf daf islam daf ko écarté boole ko ci baaxul dindi ko teg fële dafa xaram mot kon kenn werante wu ci ñaar duñ ci taxaw di werante te nag def ko sax defe naa ne mën na laa yóbbu safara léegi nag comme yàlla nee na ku rey nit te tey ko fa jazaa'uhul jahannama mm-hmm. kooku ko kooku boo koy ñaanal loo koy ñaanal yàlla nee na ku rey nit te tey ko jahanama nga jëm hmm. dafa am naar safara la dafa am saxir safara la hmm. dafa am jahanama safara la am na yeneen i tur ci alxuraan hmm. yoo xam ne day signifier saxar yépp day signifier safara waajooju nag am na ñu ko gën a mettile foofu la ñuy dund te rey ñu seen bopp mu nga yëg ko nga yëg ko nga bañ koo yëg ndax damay faral di wax ne ku bañ am problème bul samp kër ku bañ a am problème bul takk jabar ku bañ am coowal famille bul samp kër bul takk jabar bul am doom mais képp ku yàlla nattu nga am jom samp sa kër wut soxna def fa am ak njaboot ala kulli alin da nga am problème ça dépend maintenant de la nature di problème problème rek mën na wuute mais bu mu mën a doon yàlla bindul kenn ci bànneex ba yomal xiyam laqat xalaqnal laqat xalaqnal insaan fii ka ba din waaw am na feneen fu waxee ne yàlla def noo bind ci ay coonoog ay yi nga xam ne ay ay ay ay ay ay ñàkk doole ñu dem ba mu yàgg ñu jógee ci àddina bi alquran dafa bàyyiwul dara maa faratna fil kitaabi min shay nga xam ko nga bañ koo xam wax naa la feegi léegi nag inna Allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim léegi nag xattalu boobu nga xam ne am na xattalu si boo xam ne bi yaa ko tey ba noppi tamit yóbbu sa ñetti doom kooku ku taxaw ci àddina naan lim def jaadu na yow mi koy wax doo nit lu ñuy raf lu ñuy euh, naqarul waaye nag dafay delluwaat ci li ma waxoon ci émission bi ne société bi mu amatul repère lekku takk sa jabar dem nga amoo ko waxtaan amoo communication yàlla na yàlla yóbbu ay xale yi àjjana ndax faatu nañ daanaka ay shahid lañ sax ndax xamuñu dara ndeysaan yàlla jàppale leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, macha allah macha allah lii moo nekk seen émission jotaay alquran jàng nañ fi lu bëri nag macha allah ci wàllu société bi actuellement li fi xew ci actualité macha allah mu wax ci lu am solo lépp nag mu jël ay repères ci alquran euh, oustaz ngay tàggatoo waaw li mooy di ñaanal di ko ñaanal réew mi yëpp autorité yi nga xam ne ñoo ñu yàlla dafa leen jàmm parce que ñoom nag buñ amul jàmm itam ñun duñ am jàmm mukk di sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu kilifa diine yàlla na leen fi yàlla bàyyi maa ngi nuyu xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla guddal aw fanam sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér E li mu jiite yan bu dis la yàlla na ko yàlla woyefal nuyu xulafa yi nga xamee ne mooy bu njaasaan muy mm-hmm. bu Ceneba mm-hmm. ñoom ñëpp ay nit ñu baax lañ mm-hmm. parce que Ceneba cekkeen xam nga amari ndar ndaak sekk kenn mën ta wax histoire u Sénégal ci l'islam te boole woo ko ci Maba Jaxu Ba kenn mën wax histoire u Sénégal te te boole woo ko ci ñooñu ak di leen féete suuf ñoom maam alaaji Ñas Cheikh Islam si Ibrahima Ñas ñoom maam alaaji Malick maam Serigne Touba ñoo ñëpp njaboot googu fi yàlla bàyyi ci ñoom yàlla yàlla sutural leen yàlla yàlla def jàmm euh, yaatal ko ci biir réew mi yëpp li may faral di wax rek man ñëpp laa yéene jàmm man moom suma ma sañoon ñëpp am jàmm mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa Euh, émission baa ngi noonu macha allah balaa ñuy tëj rek dañ leen di yëgal benn journée bu am solo boo xamante ni bii mi ngi am le 26 décembre ci Boune ci euh, saal bu mag boobu Ahmed Sakhir Lo waa avenir de war ko taxawal avenir l'islam nag benn kuréel la benn mouvement la boo xam ne ay ndaw ñoo ko taxawal pour aar lépp loo xamante ni bii day nar a dugg ci l'islam te jeunesse bi di ko def incha allah seen mbokk la Khalil Amar Gassama ci seen émission jotaay alxuraan ba beneen yoon ci beneen numéro. ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam